parisiens yi euh, mais gis nga politique beeg yooyu li ci li ci xew. waaw euh, la une des journaux. Mm. vraiment ça reflète l'état d'esprit du pays mais y a y a y a y a une chose qu'il faut qu'on constate ce qui est de ce qui était exceptionnel est devenu une norme. Mm. et ça c'est sur deux aspects. Mm-hmm. c'est l'emprisonnement. nga xam ne c'était plus ou moins une exception. Mm-hmm. on l'a normalisé. tëj moom ak yenn saa ñuy jëlee la sa kër kër dem naa ni café moo yem léegi dañuy ñëw rek. ñëw la on t'amène en prison et puis voilà et c'est bien dommage et c'est le lieu aussi de le dénoncer l'emprisonnement de Abdou Khadre Sakho c'est pas lui qui a écrit l'article c'est pas lui qui a été l'origine de l'article c'est pas lui qui a été à la diffusion mm -hmm. il fallait remonter à la chaîne pour xam exactement la source de l'information c'est qui il a fait juste un métier, il a repris un article dans les normes et dans les règles de l'art. Et je pense que dans cette situation, c'est un abus de pouvoir, ñoo jël ko noonu yóbbu ko. Euh, alors la presse, la presse est vraiment en danger. On l'a vu sur plusieurs aspects aujourd'hui que les journalistes, ils ont du mal à faire leur métier. Bon, qu'aujourd'hui de la partisanerie dans euh, les journaux ou les journalistes appartiennent à une ligne de pensée. Mm-hmm. où a aux États-Unis, il y a les journalistes qui sont des républicains, il mhm. des démocrates. En France, il des droites, il des gauches, il des trucs tendances yi chaque fois day mais au moins ça reste un métier qui doit être un métier protégé mhm. et que le journaliste ait une liberté une responsabilité aussi par rapport ak li muy wax ak muy génne mhm. mais c'est déjà quelque chose à dire l'autre aujourd'hui au Sénégal on a banalisé la mort ñu ngi wax ñi nekk ci gaal gi mais les accidents c'est c'est tous les drames qu'on voit avec un enfant de cinq ans mm. c'est ahurissant un mm. enfant de cinq ans même à Kolda yoo xam ne ñaari xale yu doon xeex kenn ki donc on est devenu dans une société boo xam ne si on n'est pas pas garde tout ce qui devait être une exception on est en train d'en faire une norme et ce qui est plus dangereux dans une norme c'est que l'État même et nous en tant que citoyens qu'on participe à la banalisation de ces effets-là parce que tey bu ñu jëlee par exemple le cas des des des migrants un problème crucial qui mhm. touche le fond même de notre économie c'est-à-dire ay jeunes yuy bañ a liggéey di seen dëkk dem di bëgg wuti seen doole risque géej ak géej ñu mel ak toutes les situations ñuy dugg ba war ci mën na ne dañuy traverser phase booy moi je connais bien parce que dans le cadre de mon travail à l'observatoire je suis allé à faire une visite une fois pour xool exactement euh, par rapport ak gaz bi ñu war a exploiter foofu nu muy demee. Mhm. mais à ma grande surprise ils m'ont dit que même nawetaan mënatuñ ko am parce que jeunes yi jël nañu gaal gi. li may wax nii ça fait cinq ans derrière ou six ans. c'est pas mhm. nouveau. Mhm. c'est pas nouveau. donc il faut prendre ce problème là très au sérieux le problème c'est quoi au fond c'est un problème d'économie c'est un problème de métier c'est un problème d'espoir pour l'avenir xale bu toogatee wala ku nekk tollu ci dooleem war a mën a liggéey gisul fu muy liggéey wala la la mu waree daanee doolam gisul lu ko doy socialement et tout mm. y un poids qui se pose en lui parce que nga jël risque traverser géej gi dem beneen dëkk loolu moom fi dëgg dëgg dëgg dëgg ak désespoir moo la ci dugal mm-hmm. parce que jël géej gi avec cent et quelques personnes dans une petite embarcation y a pas plus man gisuma lan moo gën a risqué loolu trois deux troisièmement c'est que nos autorités en même ne respecte pas la vie humaine africaine de manière générale laay wax waxuma la nag exceptionnellement de la vie humaine sénégalaise c'est pas un simple communiqué qui règle ça parce que américain du nangu benn bakkan mu wadd te respecté wuñu joxuñu ko cëram mhm. bu nekkee ñun tey dëkku diine lañu a chaque nodd ñu dem fekk ñu jiite dem jumaa julli ku nekk sol sa mbubb ku nekk di waaraate vingt quatre heures sur vingt quatre rajo yi di wax diine bi di wax mais dañuy wan waxante dëgg yaa a quelque chose qui est faux dans ce qu'on fait. Mmh. parce que si la vie humaine bi nga xam ne moo gën a pressé ci kanamu yàlla ñun respecté wuñu ko tous ce qu'on fait d'autre est est est basé sur sur sur sur, quelque chose de faux. c'est mmh. quelque chose de ne pas solide. parce que la vie humaine elle est mhm. précieuse. Mhm. elle est sacrée. yàlla sàkk nit bakkan la la sàkk. moom ne kii boo ko boo jëlee bakkanam li ma la nar a teg yow xamoo ko. donc c'est précieux la vie humaine mais ñun dañ ko banaliser et mhm. donc ça devient une norme c'est l'histoire de migration là c'est pourquoi on doit revoir notre système éducatif à la base pour aller vers la formation professionnelle de manière générale 75 pour cent ñu foofu ñi ci des ñu yóbbu leen université ñu mën a jàng mhm. mais métier mooy yor nit surtout métier wax yorul nit